aousubillahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu seydina mohammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki M-Media Group Nourou Darayni ginnaaw bu ñu sant yàlla wa taala julli ci yonentam noo ngi leen di nuyu néew bu sell ba muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm bi jay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël néew boobu rek di ko jaarale ci suñu kilifa gi ak cheikh abdul ahad mbakke di ko ñaan mu leen ñu ko ci mboole mbokk yi rek ñu nu liggéey bi waaye moom itam du koy ñaanal rek yàlla gën a guddal aw fanam may ko wér ak fekk ak tal ak xewal yu kawe njortam ba lim bëgg liggéeyal maamam ji ci yoonu xaadimu rasul wi mu amee ko nu koy njortam te nu ànd ko moom jàppale ko ci bijaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon xam naa tey suñu fatwa muy tontu laaj yi ci la ñuy dellusiwaat rek di ci ndokkeel mbokk yépp nag Eh, boroom xam-xam yi ne ci biir liggéey bi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit eh, góor yàlla yi nekk ci biir wax dëgg yàlla suba bu xëy suba gu ne ñu ciy gën a wane seen yëg-yëg ak seen pësteef ak seen ak bëgg lu baax ak seen liggéeyal sëriñ bi yépp ñoo ngi koy teelu di ko diglu di ko jàpp bu baax a baax a baax kon ñoom ñëpp ñoo leen di ziare rek ak mbokk yi ne ci biir group bi yépp ak soxna yi nga xam ne yii ñoo ngi ci biir ànd ak ñun liggéey bu wax dëgg yàlla ñoom itam di ci taxaw bu baax a baax kon tey jii sunu laaj bi njëkk am rek mu ngi jóge ci sëriñ bay juuf muy laaj moom ne comme euh, takk soxna soo xam ne si am nasaraan la daal wala ab yahud la comme ni ko oustaz Serigne Khadim ñu ngi laaje woon nga ne moom daa bëgg ñu dolli ko ci ak leer daal su ko defee loolu lañ ko cay waxaat rek mooy azawaju min alkitaabiyati mubaaxun jaiz ida kanat afifatan dañ ne ñooñu xam ne ñi dañoo am téere euh, bu fekkee ni gis nga ci soxna soo xam ne si euh, bëgg nga ko lislaam may na la nga takk ko loolu luñ la may la lu dagan la waaye tamit nee na na nga ko jàngat xool ko moom soxna soosu ba xam na yow suñ la ko mayee nga wax ko lu wér loo xam ne lii su fekkee ne dafa nekkan koo xam ne kii day dem di njaaloo ji mu bàyyi njaaloo googee waaye tamit boo ko takkee eh, njaaloo googu du dem di ko defi loolu daal lañ lay wax ne su fekkee ni moom mën na koo bàyyi daal mën nga koo takk su ko defee it eh, day laaj Euh, ndax mayenees na ko may ci jàkka ak euh, imam ba dina fa mën a jàng alxuraanam déet wala mu mën a doon waaw lañ fa waxan fee rek mooy jëm moom euh, lislaam kay maye na ñu may ko ab jullit ab jullit mën koo takk nekk ak moom manees na ko maye ci jàkka comme ni ñu may jullit yu jigéen yi waaye mayit ak mayit dañu xam ne moom tënkuñu ko ci jàkka rek maanaam fu ay jullit mën a daje rek nekk fa doon fa ay seere foofa mënees na fa may soxna ak béréb bu mën a doon ci kaw suuf bu buñ bu dee ne béréb bu ay jullit mën a nekk la euh, mënees na fa may soxna soo waaye it bu dee ca jàkka itam mën nañ ko fa maye waaye bu booba it bëgg moom soxna soosu jëm ci jeneen diine la ne euh, ay waajuram ñëw seere may googu ba mu leer nañ ne ñoom d'accord nañ ca may ga su ko defee la muy laajaat ci wàllu jàngu alxuraan wa itam dañuy wax ne euh, bu ñuy mayee wala bala ñoo maye sax lañu waxaat nañu def ab xutba ndax xutba bi nga xam ne bi moom lañu wax xutbatu nikaa dañ ne maanaam la doon gën maanaam ñu jàng ko bala ñuy maye waaye nag suñu euh, maye ba pare itam dog koo jàng maanaam euh, xutba boobu dana baax te xutba boobu buñ ko jàng alxuraan da cay am am na ay ay alxuraan yoo xam ne yi ma ngi ca biir kon bu fekkee ni imaam a fa nekk ñu ne ko tànn euh, ñaan defal xutba bi buy jàng xutba bi faaw mu jàngale alxuraan ja te xutba boobu dañu ne maanaam ku fa mën a nekk rek koo xam ne kii mën na koo jàng may nañu ko maanaam buñ ko joxee ndigal mën na koo jàng kon du terewu ne su fa imaam nekkee euh, mën naa jàng xutba boobu te xutba boobu buñ koy jàng alxuraan dafay na ci biir incha allah maanaam xutba bi moom laa bëgg a jàng nii lii ma ciy leeralaat maanaam ci takkuk soxna soo xam ne si ab yahut la wala nasaraan la dañ cee gëstu ba liñ ci gën a leeral mooy soxna soo xam ne si am nasaraan laan ab jullit bëgg koo takk waaye soxna si da ko xamalat ne ko maanaam nungu naa nga takk ma daal waaye jëmmi maanaam di jëfandikoo lislaam daal mënaguma ko ba ndaw si waxe loolu waa ji nag waa di laaj ndax moom ku mel noonu moom mënees naa dem ca jàkka ja tekk ko fa wala déet te loola it ñam ko laaj muy boroom xam-xam yooyu ko laaj dañ ko ne kooku mënees na koo takk ca jàkka ja ndax ak dugg ak ci duggam ci lislaam moom maanaam bokkut ca charte ya ndax moom àla kulli xaal nu mu mën a demee jullit bi takk ko moom ca la ñuy gën a amee yaakaar ci ne yàlla mën naa dogal mu dugg ci lislaam te su boobaa day gën kon maye ga ca jàkka ja ak imaam ja di jàng alxuraan ja keneen ku mën a doon daal lépp lu mën a nekk la su ko defee xutba bi nga xam ne bii moom lañuy ñuy war a jàng moom laay leen di moom laa bëgg a wax nii mooy inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallama abduhu wa rasuluhu lii mooy xutba bi nga xam ne bii maanaam moom la ñu tàmbalee ci xutbaab bu ñu mayee ba pare wala bala ñuy mayee su ko defee ki koy jàng su jàngee lii ba pare da daal di teg ay lii ma ci waxaat ni muy ay ay alxuraan la mooy yaa ayyuhal lazina amanu taqullaaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illaa wa antum muslimuuna ak yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waaxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kaana aleykum raqiban ak yaa ayuha allazina amanu taqullaha wa qulu xawlan sadidan yuslih lakum amalakum wa yaxfir lakum junubakum wa man yuti allaha wa rasulahu faqad fawza fawzan lii mooy xutba bi nga xam ne bii dañ ne bu ñuy mayee nañ ko fa jàng kon jéem xutba bi alxuraan a nga ci te dañ ne ña fa ne teewee sëy ba di ko seere ku ko ca mën a jàng rek mën nga koo jàng bu tombee ñu jox ko imam ba imam da koy jàng su ko defee it dañuy leeral ni maam ak may ak soxna moom imam teew fa ak ñàkk faa teew ñoo ca yem su boobaa moom bu fa imam newut du tere dañ koy mën a maye teew fa teew ak imam nekk ca maye ga moom day bokk ca seere yi rek maanaam mu gën a firnde waaye bu fa teewut itam euh, du tere des na ko mën a maye ku mën a jàng ko baba nga jàng ko kon daal xam naa loolu lañ ci tegaat ci leeral ndax euh, jaaram nañ ci su ko defee ñu gën ci defaat ay gëstu rek maanaam luñ ci mën a am ci gën a ci leeral ñu mën ko ci gën a am bu soobee yàlla was wallaahu aalam yeneen laaj yi ci topp soxna Cuba Njaay moo koy laaj soxna si ñoo ngi koy ziar bu baax a baax waaye moom de koor gi yëpp te xam naa dafa mel ni dana rëccande dafa bërën xam naa moom dañ koy booleeg njóobeen rek mel na ni yabut koor gi lool daal xam naa dañ koy booleeg njóobeen rek xam naa waaw bu ko defee soxna si te dafay laaj ne e, dafay seetlu ne bu ñuy julli julli mbooloo am na ñoo xam ne ñii ki nga xam ne kii mooy jottalil imaam ji dañu koy jiitu maanaam duñ ko xaar waaw loolu moom dara nekku ci. ndax jottali moom ki jottali moom ñeneen ñi maanaam ñoo yem ci julli gi rek waaye kooku daal nga xam ne day jiitu kooku jottali moom na góorgóorlu ba maanaam bu mu jiitu imaam ji na fexe daal ba lu muy def na fekk ne imaam euh, def na loola ba noppi ndax euh, jottali ma boo ko déggee ñu koy wax doonu loo xam ne lii lu ci julli la wala mënu caa ñàkk ndax mooy bu fekkee ni nit ñi dañoo baree baree bari ba am na ñoo xam ne duñu gis imaam duñ ko dégg defe naa mooy sabab ñuy waral jottali doonte dem nañu ba ñëpp sax di mën a dégg imaam ci wala ñu di ko mën a gis di mën a ànd ak moom sax dañu naan maanaam jottali ga moom daanaka mën na caa ñàkk kon ki nga xam ne kii daane ci biir julli gi euh, bu imaam defee benn ponk maanaam bu sëggee mu sëgg mu siggee mu siggi doonte maanaam moo ciy jiitu koy jottali maanaam loola yàqut ci julli ga dara ndax ñoom ñaar booy xool ñoo yom ci julli ko rek maanaam ku ci nekk da war a roy ci imaam kon loolu dara néew ci waaye dal nay góorgóorlu ba euh, bu mu jiitu imaam ndax imaam moom boo ko jiitoo rek maanaam julli ga day yàqu te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax nan sax waaw ki nga xam ne kii day jiitu imaamam di ko maanaam mu misaal ko ci ëpp sujjóot mu ne ki nga xam ne kii day jëkk sikki imaamam cib sujjuut xanaa du ragal maanaam bu siggee yàlla def euh, boppam ba boppam mbaam loolu lépp yonent bi da wax ngir moytuloo ki suñ ko jiitee mu jiite kon moom euh, dara new ci ci kooku nga xam ne kii mooy jotul imam ji moom boo ko jiitoo it dara new ca mu ne dafa am ñoo xam ne ñi bu ñu sëlmalee bu ñu jullee ba sëlmal dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tëfle raay ci seen ab jë waaw loolu de soxna si lu baax la loo xam ne lii lu ñu may nit ki mu def la ko ndax loolu moom lu baax la rek ak ak yu woo xam ne bii xañ na moom la ci nit koy jubloo am ndax julli ci yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam luñ ci mën di waxtu it ndax ndigal la te it ay xewal rek la yokk rawatina nag ki julli ba pare wax ca ab lim tufli ko wala mu mu ëf ko ci ay loxoom raay ko ci euh, xar kanamam loolu lu baax a baax la loo xam ne lii euh, mënees na koo def moom itam waaye itam muy muy laajaat ki nga xam ne kii daa julli ba pare euh, lan daal la war a def wala lu muy wax waaw julli moom ku julli ba sëlman waxoon nañ ko fi ci ab fatwa ginnaaw bi nga defee say baaxiyaatu saalihaat te mooy subhaanallaahi fanweer ak ñett alhamdulilahi fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett euh, loolu la ñuy wax albaaxiyaatu saalihaat ne ne soo defee yooyu ba pare lu la neex ci lu baax daal mën nga koo ñaan ci sa borom maanaam loo bëgg rek luy say aajo rek maanaam muy aajo yu adduna yi ak yooyu àllaaxira yi ak lu mën a doon rek euh, nenañ la maanaam soo jullee ba def say baaxiyaatu saalihaat daal Eh, mën ngaa ñaan sa borom sa aajo yépp yu baax yi waaye itam mën ngaa jéglu sa borom lu la soob mën ngaa julli ci yonente bi lu la soob mën ngaa zikkar mën ngaa tudd yàlla sa kemtalaay kattan daal lu la neex kon daal eh, moom loolu la doon laaj bu ko defee kiy jottalee ki ànd ak moom gi di ko jiitu loola dara ci waaye tamit julli ba eh, julli ba pare julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa Eh, ëf say loxo raay ci sa jë loolu lu baax la dara nekku ci waaye tamit boo jullee ba sëlmal ba def say baax yaatu saalihaat daal lépp loo mën a wax ci lu baax baax na lu mel ne jégglu sa boroom zikkar eh, julli ci yonente bi sallallahu alayhi ak ñaan say aajo kon eh, soxna si ñoo ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko sant bu baax a wax itam ci taxawaay boobu nga xam ne bii am na ko ci biir liggéey bi yeneen laaj yi ci toppaat sëriñ Moustapha caw moo ko fi rotal Moustapha Thiaw ndeysaan suñu rakk ju baax jooju ku baax ndeysaan ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko xamal ne ko ñoo ngi lu lool bu baax taxawaayam dégg nañu fi muy waxee bu baax a baax yàlla dañoo boole wax dëgg yàlla te boobaak léegi yàgg na te boobaak léegi ndeysaan taxawaayam saa su ne rek day gën a feddaliku di gën a dëgër ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax waaw si Moustapha moom day laaj ndax na ne hël hun hël eh, nisaa u dunia dafay laaj man hunna alxuurul ayn maanaam jigéen ñoo ñuy tuddee alxuurul ayn mooy ñan muy laaj ne hël na nisaa u dunia am laa muy laaj ndax ñoom mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci àdduna wala dafa doon yeneen jigéen waaw foofu lañ ko fay tontu mooy lay inu laysat nisaa dunia jigéen ñoo ñuy wax alxuuru in ñu nekk ca àjjana maanaam doonul ne jigéen ñi ci àdduna ñoom lañu déedéet alxuuru in dañu ne hunna min niamil jannati allati aaddaha llahu lil muttaqiina alfaizina min almuminina alxurin mbokk mi mbokk yi dañoo bokk ci xewal yi nga xam ne yii yàlla da ko programme mu bokk ci xéewale àjjana yi nga xam ne yii yàlla da ko def ca biir àjjana di ko xaare jaamam yi nga xam ne yii gëm nañ ko te doon ñu nekk ñu ragal yàlla jigéen ñooñee ca xéewale àjjana lañ bokk waaye bokkuñu jigéeni àdduna yi dara ci wàllu nañ leen melal ci aw melokaan bu ko defee kon bu biir àjjana ñoom fa lañ nekk mosuñu fa génn te duñu fa génn waaye itam du tere jigéen ñi nekk ci àdduna moom ku nekk ku ci nekk ab jullit te nekk ab yàlla ba yàlla atte ko ci coobeereem mu dem àjjana itam maanaam ñooñu itam dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñii ca jigéeni àjjana ya lañuy bokk su ko defee xam naa buñ nee ba ci kanam dinañ gën a leeral jigéen ñii ci àdduna maanaam buñ demee àjjana eh, nan lañu fay mel waaye mbokk mi nañu xam ne àjjana daal eh, ni ñu waxee mooy fallahu taala aadda lil muttaqiina fil jannati maa laa aynun ra'at wala uzunun sami'at wala xatara ala xalbi basharin ne yàlla waajal na ca biir àjjana ñi nga xam ne ni dañ koo ragal loo xam ne lii benn bët mësu koo gis am nopp mësu koo dégg am xel sax mësu koo xalaat bu ko defee ne na fa kullu ma yutlabu fil jannati mu jaabul ne na nag àjjana moom ku fa xas dugg maanaam loo bëgg rek soo ko ñaanee yàlla boo ko sàkkoo loola danga koy daal di am àjjana moom amut maanaam di ñaan dara wala bëgg dara bañ ko am loo bëgg rek da koy daal di am ndaxte yàlla dafay wax ne nahnu awliyaukum fil xayaati dunia wa fil axirati yàlla ne ma yéen ñi nga xam ne ñii da ngeen a gëm te di ma jaamu yàlla da ngeen xam ne man yàlla maay seen kilifa ci dund ko àdduna gi ak alaaxira walakum fiha ma tashtahi anfusukum walla fiha ma taddauna te ne ne eh, bu ñu demee bu bu ñu demee ba allah ci alaaxira ba ñu ragalan yàlla yàlla dugal leen àjjana ne lépp loo xam ne lii seeni bakkan bëggan na ko rek maanaam loola moom la ñuy am ca biir àjjana ndax nee na loolu day day nekk nuzulan min ghafurin rahim mu nekk ak bernde goo xam ne gii yàlla da koy berndeel ñu nekk biir aljanna ci moom moom nga xam ni mooy aji jéggale ja te mooy aji yërëme ja kon daal liñ ci dégg mooy yàlla waajal na ñi ko gëm te di ko jaamu ca àjjana soxna yooyu nga xam ne ñoom lañu tuddee alxuurul ayn waaye tamit euh, jigéen àdduna yi tamit bu ñu demee àjjana di daje faak ñi ñu nekk leen fii ci àdduna muy seeni jëkkër ñooñu maanaam mën nañoo àndaat ak ñoom ndax euh, dane ñoo ñi nga xam ne ñi ñooy jigéeni àjjana yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da caa wax ne law anna mraatan min nisaa ahlil jannati ittalaat ilal ardi la adaat ma baynahuma wala malaat ma baynahuma rihan wala nasifuha xayrun min ad dunia wa ma fiha wa sallam dane soxna yi nga xam ne ñoo nee biir àjjana day euh, mel nañu melokaan woo xam ne bii cib taar ak ak leer ak ab rafetaay kenn ci ñoom maanaam ne bu yëran suuf si maanaam euh, day daal di leeral ko àdduna gépp nga xam ne dootuñu soxlaab làmp fii ci àdduna kon waaye itam ne ne yër googu mu yër àdduna ba jàkkaarloo ko àdduna gis ko ne dana fi bàyyi xet ak lat tooñ koo xam ne gii gi bokk maanaam lat ko ne ji gën a neex la adduna dee te xeeñ su ko defee daanaka kenn dootul soxlaa dem di jëndi lat ko la yoo xam ni da koy xeeñ sallallahu alayhi wa sallam ne euh, ñoom daal day nañ waar mel nañu noo xam ne ni na leen yàlla bindee ne ne fulaar ñu teg ci seen bopp maanaam lañuy euh, muuroo ci seen bopp ya ne ne loola taar ba ca def toor taar ba ca yàlla def ak mbégte ma ci yàllay defal nga ñi nga xam ne nii dañu koy xool ne ne musóor yooyu dong dong dong la ca nekk ci taar ak bànneex ak loo xam ne li dafa neex doomu aadama bi ne ne moo gën àdduna ak li ci biiram lépp soxna yooyu mbokk yi muy alxuurul ayn xaadimu rasul dana wax seenu melokaan ci téereem bi mu tuddee hëmmat sulayma muy hëmmat muy xasida googu jàngkati xasida yi jàng muy sëriñ bi danoo bëgg leeral ne alxuurul ayn yooyu nga xamee ni ñoo nekk ca àjjana ku ca bëgg a am bu ñu nga am ca ñu doon say soxna maanaam àdduna gii maanaam lépp luñ la fi tere ci wàllu googu rek danga koy bàyyi moytu ko te jublu ci ak jaamu yàlla loolu tax maanaam mu jël àdduna tudde ko sulayma sulayma nag maanaam bari na mbokk yoo xam ni maanaam bu ñu jàng xasida googu dañ na hëmmat sulaymaan te du sulaymaan sulaymaa la sulayma mooy tas tasxiiru salma maanaam sëriñ bi dafa jël àdduna niroole ko ak ak jigéen goo xam ne gi jigéen gu tuuti la maanaam ngir ne eh, xañ na li ëpp ñaare ci li ñuy seetlu mooy jigéen gu tuuti noonu maanaam bind bi rëyut loolu day doon jigéen gu doy war goo xam ne gii eh, gu mën a def ay mbir la daal ci wàllu ay eh, jaxase nit ak yooyu su ko defee loolu mooy sulayma maanaam ñi jàng naxu maanaam grammaire arab bi euh, sulaymaan mooy tasxiiru salma mooy jigéen goo xam ne gii daal gu rafet la rek la ci jublu euh, mu tudde ko adduna su ko defee téere boobu buñ koy jàng euh, dañ ci gisee ni nga xam ne moom la yàlla melale adduna ñu war ko moytu waaye tamit ak ni mënu melale jigéen ñooñu nga xam ne ñi ñoo nekk ci àjjana tudd alxuurul ayn mu daal di tàmbalee ci misaal soxna soosu di Suleyma te it nee leen àdduna rek la ci sëñ bi jublu dane hëmmat Suleyma bi sarfi an maziyaati kayma taquuda zimaami li rëziyaat soxna sii di Suleyma de ne eh, def na ay yitteem yépp ngir maanaam bëgg a soppi man sëñ bi sama yitte yi nga xam ni moom laa am ci bëgg dem ci sama boroom nee na sama yitte mu bëgg koo soppi ngir maanaam moom ma maanaam jàpp ci sama nos di ma ommat jëme ma fépp foo xam ne fii moom moo ko neex moom euh, jigéen googu te it na ne sama nos boobu mu jël di ko ommat daf ma bëgg ommat rek jëme ma ci loo xam ne lii ay musiba la yoo xam ne yii day xaar nit ki fële ca kër geenu jëm muy àllaaxira sëñ bi daal di ne abdat li tastaada xalbi xusna bahjatiha wa wajjahat lil hadaya bil mawarraat muy daal commencé nag di wax pexe yi nga xam ne moom lay àdduna di fexe mu jaarale ko ci jigéen boobu mu ne abdat moom soxna si feeñal na xusna eh, bahjatiha lu ma am ci taar li tastaada xal bi ngir mën a moom sama xol bi jàpp ko jekku ko wa wajjahat lil hadaya bil mabarraati te ne ne ci loolu itam lépp loo xam ne lii ay may la rek maanaam day ñëw yombalal ma ko di ma ko jox ngir ma jëng jëm ci moom sëriñ bi ne am sattu tayibu nafsi kay amila laha wa xaawalat may la xal bii lil hadiyat dana jigéen googu te àdduna la ciy jublu dana gont na euh, di teeyal sama bakkan di ma wax lu neex di ma wax loo xam ne day tax ma jëng ci moom nee te loolu lépp da koy wax ngir ma jéng jëm ci moom te it addiya bi ma koy jox may bañ maanaam pexe mu mën a def rek ba ma jël ko ngir sama xol bi bëgg addiya yi mu may jox jël ko maanaam muy def loola sëriñ bi ne wa xaatabat nii bi ma yadoo li xitbatiha wa azhara sidqa waadin bi raxibat ne ne sox euh, jigéen googu dey ni euh, ngi may labat ci def ay fànni defin yoo xam ne yi maanaam ni soxna yi def ngir ku sab xol oyof maanaam nga mën a daal di jëng jàng jëm ci moom te ne loolu muy def noonu di ma labat ci pexe yooyu muy fexe yi da cee ne moom daal bëgg gi ma bëgg lu wér a wér la da fekk na dara amu ci sëñ bi na tawrante jii nii tuul yi nii jawa isaha wa taaratan li tuuf di bil bu sharaat sëñ bi ne na jigéen googu te àdduna la ci jublu moom laa leen di wax saa ma ne jigéen gi rek kon jàppale ne àdduna la ci suñ bi jublu nee na léeg mu ñëw ci man daal di may indil addu yu baree baree bare ay may yu baree baree bare waaye itam nee na nag léeg-léeg itam day ñëw ànd ak mbégte mu baree bare moo xam ne mii moom la may indil waaye nag sëriñ bi ne euh, yàlla mi nga xam ne mii moo xam lépp moo man lépp dama xamal ne kii day maanaam boo ko toppee maanaam ci sa musiba rekk la la jëmee ma daal di xam loola gëm ko daal di fexe nan lay mucc ci jigéen googu loolu lay wax ne lakin alminte wa ilmi sawfa yanfauni bi annaha zaatu maynin fil maqaalaat sëriñ bi ne loolu muy def lépp nag day terewut man da xam naa ne euh, moom day zaatu maynin maanaam lu mu la wax rek du dëgg ci waxam yooyu mu lay wax sëriñ bi ne na xam naa ne lu mu la wax rek du dëgg te ne ne xam-xam boo ma xam nag sama diggante ak moom ne moomu noonu la mel euh, dina ma jariñ lool daal di waxaat moom sëriñ bi ne kaanat mawaidu urqubin laha masalan wa ma euh, sëriñ bi ne ne urxuub defe naa ñi jàng war nañ koo xam urxuub jëmm laan joo xam ne ji maanaam ab fenkat laan maanaam lu muy wax bu du dëgg sëriñ bi ne jigéen bii nag muy àdduna mii ñëw bëgg a jaar ak man fii ne maanaam mi ngi mel noo orxub moomee nga xam ne lu mu la wax du dëgg te ne euh, li ma ca xam mooy lépp loo xam ne rek euh, moom dig na la ko loola du nekk lu dul ay wor daal di wax ne laysa turi safa illaa xat arat kadaran min baadihi watu daari bil makidat nee na jigéen gi day euh, lu mu la woon ci ak sellal balaa yàgg maanaam mu daal cee dugalaat ak nëx-nëx maanaam da koy daal di nëxal euh, te it ne ne bu koy def dalay maslaak yow di mar-maral maanaam ngir bëgg loolu jaxasoo ci yow ba maanaam doo mën a xàmmee nan ngay mucc ci moom wala turin nafa illa adxala darar fii wa tudmiru hadaman fil maonaati te ne na lu lum la woon ci loo xam ne lii ay njariñ la euh, du yàgg dara bu daal di cay tàbbalaat loo xam ne lii lu lay lor la loo xam ne lii boo ko toppee Euh, da nga cay loroo rek te it ne ne ndimbal yi mu lay dimbali day fekk ni maanaam ma nga nëbb ca biir ndimbal ya euh, loo xam ne lii euh, soo jëlee loole mu lay ay ndimbal la sa musiba dong la di doon mu daal di koy nëbb ca biir sëriñ bi daal di ne fa ujuta anha ila man laahu yudxiluni bihi jinaanan xawat xuuran wa fiyat sëriñ bi ne nag bi ma xamee loolu ma daal di koy mbos daal di koy njuuy mbos ak njuy yaakaar naa mbokk yoo xam nañ ko bu baax a baax nee noonu laa ko def moom jigéen googu daa di koy won ginnaaw euh, jëm ca la nga xam ne lii de su ma ca awee ca la yàlla di dugalee ay àjjana yoo xam ne yi xawat xuuran wa fiyaat na ay jigéen yoo xam ne ñi ay jigéen ñu am kóllëre la lañu duñ la war mooy laajab mbokk mi muy alxuurul yi muy xewal yooyu nga xam ne ay jigéen lañu yàlla def leen ca biir àjjana sëriñ bi ne moom àdduna mi mu misaal ko ci soxna su ne ne bi soxna si defee man noonu yi ci fii ci àdduna bëgg maa wor ma ne dama ko njuuy mbos ko daal di koy woon ginnaaw daal di jëm ci la nga xam ne di daal ci la ma yàlla di tàbbale ci àjjana yoo xam ne bu ma fa demee dinaa la jeg ay jigéen yoo xam ne yi nañ mel maanaam ñoom dong na mel loolu lay wax ne aqbalati dunia ilaya xablu wa biatuha fa zala anil kablu loolu day tombeek li sëriñ bi wax ne euh, bu jëkk dey adduna dafa ma jubloon lool waaye man ma daal di ko woon ginnaaw euh, aqbalatu dunya ilayya kon lii mooy melokaan yoo xam ne yii alxurul ayn noo ñoom lañu noonu lañu mel ca biir ajjana muy laajab mbokk mi sëriñ bi ne هنا الغواني اللواتي لا تكافئها سلمى وهند ولبنى في الخريدات nee na xóoral in yooyee ñooy jànga ja nga xam ne ji ay jigéen ñu ndaw lañu ñoo xam ne yii salma ak hind ak lumna bu ko sëñ bi tudd maanaam da ci jublu mën nañ ne jigéen ñi nga xam ne ñi ñoo gën a rafet ci àdduna day nee na ñoom ñu li ñuy rafet rafet lépp maanaam xaaju ñu bay jege eh, al xóoral in yooyu nga xam ne yii ñu nga nekk ca biir àjjana hunnal xawaani lawaati laa yafuuzu biha illa lazizdaana bi taxawaa bi taati sëriñ bi ne soxna yooyu ca àjjana day mooy ñi nga xam ne ñi kenn du texe maanaam man caa am lu du ni ki nga xam ne kii daa taqoo ak ak ragal yàlla ci di jaamu yàlla te def ndigal ya ak bàyyi tere ya hunnal xawaani lawaati dërëmaa kifarun fii ma laha min xiyaamin wasta jannaati nee na alxurul in yooyu ci àjjana mooy ñi nga xam ne ñii euh, fa leen yàlla def ca seen mbaar ya ca biir àjjana fa lañ mas di sax duñ ko mës a génn di dem di taxawaalu ji fenn ca digg àjjana rek la ñu nekk duñ ko génn di dem fenn xuurun la dallaahi iinun laa yuqaaribuha xaydun wala daranun daamat naqiyat nee na alxuurul in yooyu day mooy ñi nga xam ne ñii maanaam du ñu def xayd maanaam du ñu gis régal wala dara nun du ñu am ab tir ne foo leen gis rek dañu gën di set di gën di rafet di gën di taaru xoorun la mu dallahi atraabun muxaddaratun taxtal xibaar bi minal buusa salimaati ne ne xooru leen yooyu day maanaam atraab lañu atraab mooy ay ay jigéen ñu ndaw ñoo xam ne ñii dañu toll ci eh, ay fanweeri at ñett mooy tolloo ak seen ak dund nga xam ne ñooñu dañ leen di denc ci ay ron xubba yoo xam ne yii fa ñu nekk noonu ci biir àjjana euh, boo gisee seen yaram ya amul benn benn benn tilim walla benn taq-taq wala benn gàkk-gàkk boo xam ne bii day nekk ca seen yaram ya dégg nga mu ne xuurun la dalaahi atraamun fuqnal xanaa dii la nuuran tiibuha abiqum yox ji na badara yadin fawqa samawaati ne ne xuurul in yooyu day maanaam euh, seen leer ga maanaam kawe na leer ak làmp boo mën a gis fii ci àdduna tey nee na euh, ñoom day euh, loolu ñuy wax badru ya di mooy weer bu demee ban tollu ci fukki fan ñeent noonu muy leere ne seen leer bu feeñoon day daal di làq weer ak leer ak weer woowu nga xam ci fukki fan ak ñeent sëriñ bi ne na gis lahunna jismun ratibun xaalisun xadirun daw u taraibi jaalin li dujunaati ne na alxoorul ne yooye nekk ca biir àjjana day seen yaram ya yaram yu ritax lool la yoo xam ne yu sell la yoo xam ne yii dafa naat lool nga xam ne seen ndombay baat ya maanaam fu ñu mën a dem rek ci biir àjjana ji bu fekk ne day nekk foo xam ne fu lëndëm la maanaam bu ñu fa duggee seen ndombaay baatin yi maanaam day daal di leeral foofe miraatu azwajiha abdaanuhunna naam is nuuru abdaaniha yusri sirajaati ne ne ña nga xam ne ñi ñooy seen jëkkër ya ñoom xuurul in yooyee day maanaam bu fekkee ne dañuy waaj di fenn maanaam du ñu soxlaa jël ab seetu di ca seetu waaye bu ñu jàkkaarloog seen soxla yooyu rek maanaam maanaam mooy gën a leer ab seetu ci ñoom ndaxte ne is nuuru abdaaniha yusri sirajaati ndax ne ne seen leer yaram ya day maanaam fu mu feeñee ci béréb bu mën a doon rek làmp bu mu nekk rek da ngay gàcc da am gàcce maanaam sag leer day daal di nëbb daal di ne maa masahu na la dun dil arshi anshaaha shay'un min al wasmi fii wasfin wala zaati ne ba yàlla bindee ba ak fu ñu mën a toll ca foofee ci àllaaxira na ne amul lenn lu leen masalaal ci seen yaram ya ci luy ayibal aw yaram ak lu koy saboté ci ay léget wala yu mel noonu yoo xam ne day saboté aw yaram wala sa yabxiina bil azwaaji min badalin wa bahjatu nuurik tan mu kulla saati te ne ne eh, jigéen ñooñu muy alxurul ayn eh, ña nga xam ne ñi ay góor lañu nekk ci àjjana ku ci nekk la nga ci am ci ay soxna maanaam dootuñu seenam xel dootu nekk ci geneen góor goo xam ne di du sa du seen jëkkër joojee maanaam seen xel moom maanaam yàlla da ko yemale ci dootuñu am gënn bëgg-bëgg yoo xam ne gi dañ koy bëgg ci keneen te it ne ne euh, seen taar yooyu nga xam ne moom lañu taaru muy rafetaay ba ne ne euh, waxtu wu nekk day dolle ko dañuy gën di rafet rek wala yëzal na uzaara indahum abadan akrim bihinna xaridaatin safiyaat te sëriñ bi ne ne kat euh, jigéen ñooñee maanaam loolu la ñuy wax ak ndaw ci jigéen maanaam saa bu ñu ànd ak seen jëkkër ya ba loolu dañit maanaam bu ñu àndaat ak ñoom day beesaat nga xam ne mu saa su ne loolu la ñuy àndal mu doon loo xam ne bii lu ama am solo ci wàllu koogu la comme niñ ko mën a déggee wala yasirna ila mawtin wala haramin bal la yazal na muximatin mooy baati te ne ñooñu kat maanaam du ñu nekk ñoo xam ne ñii dañuy mujj di faatu maanaam du ñu faatu ñu jeex tey du ñu màggat waaye ne ne la fay la nekk sax kay mooy soxna yooyu saa su nekk maanaam euh, dañu nekk ñoo xam ne ñu dañ leen di gën a bëgg dañ leen di gën a xemmem unal xawaani lawatil xal bu taaba biha yaxtaaruhunna ala salma wa hindat nee na daal ñooñu mooy jigéen ñi nga xam ne ñii xool bu leen gis bëgg leen bu ko defee ñee mu doon wax salmaayee ak hindaat maanaam jigéen ñi dàq ci àdduna boo leen jëleen teg leen euh, ak ñoom ñooñee buñ la ca tànnloo maanaam ñoom ñooñee ngay tànn waaye nag kon loolu mooy melokaan yi nga xam ne bii moom la suñuy wax ne noonu la alxurul ayn mel waaye kon nag sëñ bi danoo wax lan moo di seen ak can can gee am solo nag mbokk yi kon xool lan mooy can gi wa mahruhunna ittixaa'ullaahi faatiriha bi tawbatin minha wa nafsin bi nee na nag maanaam seen ak can nag nekkut lu yomb ak can mooy nit ki jigéen gi buñ la koy may la nga cay joxe ngir mu dagan la moom la ñuy waxal can sëriñ bi ne ne xuurul ayni yee seen ak cen mooy ittiqaaullahi taqoo ak ak ragal yàlla mooy can ga ci lan bi tawbatin ci tuub bin hawa ci lépp loo xam ne di bakkan ban bakkan la li taaat yi te jëm ci lépp loo xam ne lii ak topp yàlla la kon nañu xam ne mbokk yi soxna yooyu noonu ñu mel sëriñ bi ne ne ku bëgg maanaam am ja ñu doon say soxla say soxna euh, da ngay wut ak cen cen nga mooy lan ragal yàlla ci tuub lépp loo xam ne li bànneexu bakkan la waaye tam jullu ci lépp loo xam ne lii ak topp yàlla la daal di ne bi tawbatin wa bi islaami ila malikin xar jaadam mustafa kënzil bariyaati ne ne cen googe ñu ngi koy amee ci tuub daf bàyyi lépp loo xam ne li lu neexutoon yàlla la te nga nekkan ca waaye itam daal di dugg ci lislaam fas yéene jublu ci lépp loo xam ne li ak jaamu yàlla la maanaam euh, nga xam ne yàlla moomu euh, kii mu ñu boole muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom da defal lépp loo xam ne li xéewal ak jullit ñi la mu boole ko ci moom nga xam ne ci moom la ñu mën a dem sàkku ko ci man koo amee ca ñoom kon loolu lenn la ci melokaan bi nga xam ne bii sëriñ bi leeral nañu ko ci Ahmad Souleymane ne euh, jigéen xurayn ya nii la mel waaye seen cën ga mooy loolu mooy sa saxoo ak ragal yàlla waaye tamit di tuub foo mën a nekk su ko defee eh, buuf mu mën a jàpp ni ngi nga mën jaa am muy laajaat moom Moustapha Thiaw neen waaw ñaan ñi nga xam ne ñi yàlla da leen boole muy jëkkër ak jabar fii ci àdduna dañu ñu bëgganteen bëgganteen lool ndax ñoom ñaar dinañu daje àjjana waaw ñoom ñaar de ñoom ñëpp bu ñu taxee dinañu daje àjjana te it suñu bëggante waate itam yàlla dina leen boolewaat ñu nekk jëkkër ak jabar ndaxte dane fa li jamii ahli jannati zawjatun min al xuuril ini ilaawatan ala zawjatihi fi dunia dane képp koo xam ne kii dugg nga àjjana dañ lay may ay jabaari ay soxna yu baree baree bari ci al xuuril in waaye tamit boo amoon fii ay soxna ci àdduna maanaam ngeen bokk nekk àjjana soo leen soxlaa bu boobaa dañu jël soxla yooyu itam boole ko ak ñoom kon foofu dañ fi gën a dégg ne alxurul ayn bokkut ak jigéeni àdduna yi ñaari façon lañu fa iza talaba rajulu zawjatahu allati kaana yuhibbuha fi dunya fa innahu yu'ta iyaha ne ku dem àjjana moom góor gi gis fa soxnaam sa nga xam ne si daa nekk nag moom fii ci àdduna dañu bëggante woon ne su fekkee ne soxla na ko bu ko laajee rek maanaam dañ koy daal di jox soxna yooyee li anna laaha xaala lahum fiha faakihatun wa lahum maa yaddauna ndax ne ne eh, yàlla dafay wax ne àjjana moom ku fa dugg maanaam ci lu neex sa bakkan rek ngay nekk te lépp loo xam ne lii bëgg ko boo sàkkoo loola maanaam dañ la ko jox daal di waxam ne lahum maa yashaa'uuna fiihaa wa ladaynaa ne ne àjjana moom ku fa dugg ña fa dugg lépp loo xam ne lii moom la ñu bëgg rek maanaam loolu lañ leen di jox te euh, bu ko defee yàlla ne ne man li ma yor ci xewal dara du ci jeex maanaam lu ñu ma mën a laaj rek maanaam dina leen ci jox ba day des nga xam ne loo xam ne lii du jeex benn yoon kon wa fi was fi wasfi nisaai ahli jannati xaal allahu taala inna ansha'nahunna inshaan wa ja'alnahunna abkaaran urban atraban li ashaabil yamin yàlla dane maanaam jigéen yi àdduna yeneen ci àdduna te dem àjjana yàlla ne ne dama leen di formé waat inna anshanahunna inshaan yàlla ne ne dama leen di bindaat beneen bind fa abu abkaaran ma def leen ñoo xam ne ñi ay boroomi ay ndaw yu ay yu ndaw lañu doon yoo xam ne ñooy maase ñeel ñi nga xam ne ñii dañoo texe ñu di leen tudde waa waa ndejoor ñu dugg ca biir àjjana boo ko defee ne ne Euh, jigéeni àjjana yooyu nga xam ne dañoo neen àdduna maanaam dañuy maase ci ayat mooy nga xam ne euh, dañ ne ay soxna lañu doon yoo xam ne yii ci fanweeri at ñett lañuy tollu kon euh, laajam boobu mu laajaat itam loolu mooy teqaleek alxurul ak nisaaw ali jigéen ñi nga xam ne ñi ñoo neen ci àdduna bi ñu def suñu gëstu sax nag am na boroom xam-xam bu ne ci kilifay islam yi bokk na ne moom na ne man yaakaar naa ne sax jigéeni àdduna yi bu ñu tàbbee àjjana maanaam na leen di yàlla bind sax mën naa am ñooy gën a rafet alxurul in nga xam ne yi ñoo ne ca biir àjjana am na ci kilifa goo xam ne gi moom na ne man sax man lool laa jàpp waaw kon gis nga ko kon alxurul in ay xewal lañ ca biir àjjana yàlla beral ko ñuy texe ñi Eh, yal nañ ci yàlla boole waaye itam dafa jël jëlaat jigéen àdduna yi ku ci dugg àjjana booba dajeeg sa jëkkër eh, bu ngeen bëggantewaatee ñu daal di leen formé ñoom itam ñu taaru lool wax dëgg yàlla bu ko defee ñu daal di leen daal defee mën a nekk ak ñoom yàlla nañ ko yàlla jàpp ndalal bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yeneen laaj yi ci topp sëñ Xaadim ñi nga oustaz moo koy laaj oustaz ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di leen ndokkeel itam wax dëgg yàlla ci. sab taxawaay bu ñu lu lool di bëgg ci yow saa su ne wax dëgg yàlla eh, di la ziyaara di la ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan yàlla na yàlla yokk ko xam bi ak yittewoo gi bi jooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi xaar yu dafa laaj tey ne kam anwaawu talaax maanaam day laaj passé ñaata fase la maa bayaani kulli nawin boole cagit bu mënee am ak jàpp ndal ak ñu leeral passé mu ci nekk Euh, nan lay demee dañ ko naan qassama alfuqahaahu at-talaaqa ila iddati anwain wa hiya arbaatun maanaam ci li ñuy gëstu daal ci wàllu fiqh bokk na ca borom xam-xam yi ne nañu maanaam dañoo séddale am passé muy mu xaw a takku lool bari waaye ñu jàpp ci ñeent maanaam ñoom daal ñeenti passé lañ jàpp ne moo am mooy at-talaaxu sunniyu at-talaaxul bidaiyu atalaaxul rajiiyu ak atalaaxul bain ñeent yi lañ ne moo di am passé maanaam passeem sunna ak passeem bidaa ak passé moo xam ne mi passeem fayli la ak passé moo xam ne mi dafa dok nga xam ne bu ko waa ji defee euh, dootul mën a takk soxna si lu dul ci ay sart yoo xam ne xañ na ñu ko leeral ca kanam su ko defee bi ci jëkk mooy atalaaxu sunni yi mooy bi nga xam ne bii moom la ab jullit war a xam te dina fase mooy passé mi nga xam ne mii moom la sunna teg mooy lan huwa talaaxu lazi yaqaawu wifqa dawabiti wa shuruti lati wadaaha al islam ne ne fasem sunna mooy fase mi nga xam ne mi dafa dëppook charte yi nga xam ne yi moom la lislaam teg te charte yi mooy an yaqaa bi talxatin waaxidatin bi talxatin waaxidatin mooy nit ki buy soxna am na ko fase benn yoon maanaam dafay am ñoo xam ne ñi dañ naan fase naa la fase naa la fase naa la di ko takkaar di ko baamul ci bennam fase ne ne loolu du fasem sunna mooy ànd yaqaa bi tal bi talxatin waaxidat maanaam nan doon benn pase tam bañ caa jublu ñetti ya wa fi tuhrin lam yu jaamii rajulu fii zawjatahu dana ne it nit ki bu bëggee di fase fasem sunna maanaam nar xaar ba soxnaam soosu laab nekk ci laab goo xam ne gi maanaam sëyu ci ak moom maanaam àndu ci ak moom bu boobaa eh, la koy war a mën a fase fasem sunna nee na loolu ñaar yi bu ci amee mooy charte yi nga xam ne moom la la lislaam teg mooy na doon mel na passé te na doon ci biir laab goo xam ne gii fóot na maanaam gis na régal ba fóot te maanaam sëyaatu ci ak moom maanaam àndatu ci ak moom bu ko defee fa yu talliqoha maratan yaaxubuha rajaanun nee na su boobaa euh, mën na koo fase su fekkee ni da ko bëgg a fase mu mbokk bu ko defee fase moomu nag day doon fase moo xam ne nii maanaam ak fayli ji mën na ca am mën naa mën nañu ko jëliwaat fa xurrima talaaxu fi tuhri lësi jaamaaha fii kon eh, dañoo war a xam ne maanaam nit ki su soxnaam gisee regal ba fóot nekk cim set maanaam su àndeek moom maanaam maanaam dañu koy tere day araam ci moom mu koy fase ci jamono joo nga xam ne ji mi ngi ci laab goo xam ne gi maanaam da ca sëy ak moom loolu mooy faseem sunna beneen bi bu ñaareel mooy atalaaxul bidaa iyu atalaaxul bidaa yi mooy huwa talaaxul lazi huwa talaaxul muxaalifu li dawaabiti wa shuruuti lati wadaaxal islaam maanaam mooy safaanab paseem sunna maanaam paseem bidaa mooy pase moo xam ne mii maanaam dafa woote ak yi nga xam ne yi moom la lislaam teg te nee la charte ya mooy gis nga bu wootee ak moom kon fi day ne ka an yu tallixa rajul zawjatahu salaatan ne ne maanaam mel ni waa ji di fase jabaram ne ko fasse naa la ñetti yoon wala mu jublu ca wax ko ko benn yoon te jublu ca ñetti yoon mooy wax ma ne bi lafzin waahidin aw mutafarriqaat moo xam benn yoon la ko wax te jullu ca ñetti yoon wala mu taqale ko naa ko fase naa la fase naa la fase naa ci benn jotaay aw fil xaydi awit nifaas wala mu fase soxna sa te fekk soxna si dafa nekk ci diggis regal wala mu nekk ci deret yi wasin eh, deret yoo xam ne ci dafa eh, wasin wala mu nekk mu fase ko ci laab boo xam ne gi da caa ànd ak moom ci wàllu sëy kon gis nga boo xamee ab talaaxu sunni yu rek maanaam mooy safaanab ab talaaxul bidaa yi muy ñaari kon beneen bi ci des bi ci toppaat bokk euh, mooy ab talaaxul raja yu mooy fase moo xam ne bi nit ki bu ko fasee soxnaam maanaam mën naa dem fay li ji mën na koo jëli mooy lan wa huwa talaaxu lazi yajuuzu maahu li zawji an yurja zawjatahu ila ismatihi xilaal fatrati al iddati baada talxati ula wa thaniyati ne na faseem fayli mooy bi nga xam ne bi dañuy may góor gi maanaam mu dem jëliwaat jabaram maanaam dem fay ji ko masalan ci biir idda ja balaa idda jeex ne léegi fekk idda ja jeexut maanaam dañu koy may mu mën a dem jëliwaat soo soosa waaye nag fase moom na nekk ne mooy fase mu jëkk ma wala muy fase am ñaareel maanaam bu fekkee ne da ko mas a fase benn yoon maanaam balaa idda jaa jeex mën a dem jëli ko ak rajo yi lay doon bu ko fasee ñaari yoon itam balaa idda jaa jeex mën a dem jëli ko muy faseem ñaareel ba waaye foofu nag eh, dañuy wax duna aqdim jëndi maanaam du ko fasaat maanaam day dem rek jëli ko léegi nag foofu dañ koy euh, avertise mooy foofu alxuraan di wax ne attalaaxu marrataani maanaam fase ne na maanaam ñaar lañ ci ñaar lañu la ci may ngir nga mën a dem jëliwaat soxna sa waaye bu fekkee ni da nga àgg ba ca ñett ba mooy bu yi ñuy mu muy ñeenteel bi bu boobu la ñuy wax euh, balañ koo mën a takkaat day am ay charte yoo xam ni moom la ñuy wax ci ñeenteel bii nga xam ne mooy ñeenteelu passé bi ñeenteelu ba si mooy talaaxul baa in talaaxul baa in mooy passé moo xam ne bi soo amee diggante waaja ak soxna sa day dog dog goo xam ne kii bala ñoo mën a tey sëy jigéen gi day dem ba am beneen boroom kër ba taqali ko moom euh, waa ji bu ko bëggati dog ko mën a dem takki moomu fas moom la ñu at talaaxul baa in ne ne wa huwa talaaxu lasi yarfaw xayra nikaaxi alal fawri nga xam ne soo amee rek moom dañu la la waaji moom kooku moom mënatoo ko takk nda rek du euh, dinañ ci am ay sart yuñ ci wax fii mooy bëgg a ñëw nii ne ne euh, ak talaaxul baa mooy dane ñaari xeet la talaaxun baa inun bay nuunatan suxra ak talaaxun baa inun bay nuunatan kubra mooy mën nañu daal dagg gu ndaw la parce que mu dagg dog dog ndaw ak basi mu dog dog goo xam ne gi dog gu mag la talaaxun baa inun nu lan suxraa mooy lan wa talaaxu la si yaqaxu baadanti iddati talxatil ula awi thaniyati na ne gi nga xam ne gi dagg gu ndaw la mooy e, passé mi nga xam ne mii mooy passé gu jëkk ga wala gu ñaare ga loolu dañ ne bi aqdin jadidin nga xam ne waa ji dafa toog fase soxna si ci fase mu jëkk wala fase mu ñaareel ma ba iddaam jeex nga xam ne da koo takkaatan ne su boobaa maanaam takk googu la ñuy wax euh, maanaam fase moom la ñuy wax baynunatum suxraa mooy dagg na dagg gi maanaam jeexutan takk daal ndax ci benneel ci fase mu jëkk ma wala ñaareel ba waaye dafa xaar nag ba iddaam jeex mu dem di ko doog a takkiwaat loolu tax ñu koy wax baynunatum suxraa mooy ñu bañ koo jaawaleeg passem euh, fay li ma la ñu waxan ne mën nañ koo jëliwaat ci lu dul muy fasaar ko mooy euh, it daje dafa matagura na waaye fii it daje dafa jeex ba mu takkaat ko la ñuy wax baynunatun suxraa talaaxun ba inun baynunatun kubraa nag mooy wa talaaxu la si yàqaw baada talaxati saalisa nee na baynunatun kubraa nag mooy doggu rëy ga gu mag ga nga xam ne gi moom day jeexal diggante ma mooy bu ko fasee ñetteelu fase ba ñetteelu fase boobee bu ko defee loolu lay wax ne wala yaxelu li zawji muraajaatu zawjatihi illa baada mudil iddati wa zawaajiha bi rajulin aaxar wan fi saaliha anhu bi mawtin aw talaax ne ne léegi ñetteelu fase bi bu amee ne ne mooy bi nga xam ne bi maanaam dootuñu may waa ji maanaam muy dem di fay fayli jabaram jooja di ko jëli waaye tamit deesu ko may mu di ko takkaat lu dut nii Mm, soxna su mu fase woon dafa dem ba iddaam jeex jeneen waaye daal di koy takkaat waaye itam yi itam di ko fase di ko fase ba fase ko ñetti yoon moom itam seen diggante jeex maanaam maanaam walla waa ji faatu ne su boobaa nag foofu rek lañ koy may moom waa ji ku jikkoon a takk maanaam mu mën a dellu nag daal di koy takkiwaat gis nga kon fase mu dog bu àggee ci ñetteelu fase ga ne waa ji dootu ko mën a takk day araam ci moom lurut ni soxna si dafa iddawu ba iddaam jeex geneen góor takk ko moom itam di ko fase di ko fase ba fase ko ñetti yoon ba ñu tàqali ko su ne bu boobaa euh, di waa ji dina mën a dem takkiwaat ko wala boog waajoo yu ko mujj na takk yàlla dogal mu faatu ne ne bu faatu yi tamit dina mën a dem takkiwaat ko su ko defee fase mii lay wax mii la yàlla wax na Euh, fa in talaqaha fala junaha alayhima an yatarajaa mooy ne ne fekkee ni waa ji da ñetti yoon keneen takku ko fase ko ñetti yoon wala mu faatu ne ne du tere ñoom ñaar suñu bëggante waatee maanaam waa ji mën nañu mën nañu dem ci am fayliwaat maanaam waa ji mën naa dem takkiwaat ko rek la bëgg a wax gis nga kon dane fa in talaqaha fala junaha alayhima an yatarajaa mooy aay bi liñ ci julu mooy kii fase soxna si ñetti yoon keneen takk ko ba taqali ko moom ci ñetti fase wala mu faatu léegi waaju jëkk ji bëgg koo takkaat ne ne bu boobaa may nañ ko ko mu takkaat ko beneen laajam bi day wax maanu la maanu laaxisuhu min baadil aramil min xamli sakakin eh, ila axirihi ila axirihi wa ma sa ya'muru al islaamu al armalata suñu xaadim ñaareelu laaj bi day laaj ne dafay gis ne ñi nga xam ne ñi dañuy tënj tënj buñ ko waxee mooy ki jëkkëram faatu ñu bari defe naa xam nañ ko ne dañuy gis daal ne dañuy yor ay paakaak ay di tàllali tànk ak gàddu yi sa tala di ko yor lu baree baree bari yooyu daal ne ne loolu daal lay laaj ndax métti si laay ci lislaam wala déet waaw loolu la lañ ko ci tontu mooy xamlu sakaakiin wa ma shaabahahu min maddi rijlayni wa aqdi xuyutin ala rijli wa raqabati wa xayr wa xayri binnisbati lil armaati laa dalila lahum min alquran aw sunnati waaw foofu li koy wax daal mooy ki nga xam ne kii day tënj tënj yor paaka bokku ca tënj ne foo ne da ngay jël say tànk tàllal ko bokku ca tënj jël ay buumi xaaw ay ñu def ay téere la xaw ma takk ko fas ko takk ko ca baat yaag takk ko ca tànk ya takk ko ca loxo loolu bokkul ci tënj euh, ak yeneen yu baree baree bare yoo xam ne yi maanaam ñi nga xam ne ni dañuy tënj ñu ngi koy def loolu daal amuñu ci lenn ci sëlaayal maanaam mën nañ ko ci jële ci alxuraan wala ñu jële ko ci sunna waaye lañ cay mën a waxee sax nag mooy yooyu ay bidaa yu bon la yoo xam ne yii maanaam dañ leen koy def loo wala ñu di ko defal seen bopp ci loo xam ne lii ak ñàkk xam la waaye euh, teguwul ci alxuraan teguwul ci sunna te maanaam benn borom xam-xam nag rafetlu ko. te soxna si nga xam ne si dafa toll foofu ci sunu jamono ji ñuy dund leen ci seetlu mooy dafay nekk ci danger bu rëy rëy rëy ndax fi mu ne nii li ñuy seetlu mooy nit am na ñu bari ñoo xam ne ñii bu ñu seen jëkkër jógee bañ na dañuy tënj seen tënj googee. mën nañ ca dëkk di def ay bàkkaar yoo xam ne bu ñu paree bàkkaar yooya ah, mën nañ leen topp dootu leen bàyyi ndax daanaka ci def lu araam dong ci la ñu nekk ndax loolu eh, liy sabab mooy dangay gis ne ñoom bu ñu dee bu ñu nee dañuy tënj dañu dem jëli jigéen goo xam ne gi juróom benn fukki at la am jàpp juróom-ñaar fukki at jàpp juróom-ñetti fukki at mooy doon seen gidd bi nga xam ne bi maanaam moo leen di wax def leen nangam moo leen di wax bàyyi leen nangam te xam nga ne moos bu nu jàngataat lii ci Sénégal jigéen goo xam ne gi dem na ba am juróom benn fukki at juróom ñaar fukk jëm jàpp juróom ñetti fukki at mënta wax nit ci diine loo xam ne lii moom la war a def tere ci diine loo xam ne lii das ko war a bàyyi dañoom kooku la ñuy jël teg ko maanaam moom la ñuy gëm leen di wax moom la ñuy def moom la ñuy topp yow boroom xam-xam bi nga xam ne bii li nga leen di wax ci na nga koy teg wala nga teg ko ci alxuraan wala nga teg ko ci <clears throat> waxee borom xam-xam yi maa ngi jéglu bu soxna si ñëwee yow borom xam-xam bi loo leen diggal bu wóoteeg la leen soxna soosu di digal la soxna sa la ñuy def loo leen tere bu wóoteeg la leen soxna say tere su boobaa moom la ñuy def loolu nag lu garala loo xam ne li xañ na lañ ca man mooy ñaan yàlla saafara ko waaye lu dëgëra dëgër la loo xam ne lii jafe-jafe bu rëy rëy la ci soxna yi nga xam ne yii dañoo toll foofu di tënc su ko defee Euh, loolu lay wax wamal asafi shadid fa rubama tu'marul al armalatu ma huwa xaraamun alayha ne ne mën naa am sax dinañ dem ba digal euh, kooku di tëj loo xam ne lii lu araam lay doon ci moom katar ki rukoy fi salaat mel ni am na ñoo xam ne ñi dañu naan kiy tënj maanaam buy julli du rukoo waaw léegi julli goo xam ne gii nag amut ab rukkoo nañ leen ko xoolaat nan la war a mën a nekke te rukkoo nekk farata ci julli ak yu yeneen ak yeneen yoo xam ne yi yii eh, deesu ko mën a wax wa adamu salaati fii waxtiha ak it am na xam ne dañ naan kiy tënj maanaam wërta julli ci waxtu wi bu jotee maanaam wërta ànd ak nit ñi ca waxtu julli wa waaye dafa war a xaar ba julli nga xaw a jàll waxtu wa jàll te muy dog di julli te ñu ne la gis nga julli moom dafa am waxtu yoo xam ne yow jullit bi saa bu jotee rek waxtu yooyu da war a dem julli ju ñu di leen gàllankoor ci ni leen léegi yéen da ngeen di war di tardé eh, julli kooku su ko defee foofu dal jafe-jafe la boo xam ne bii boroom xam-xam moom luñ ci man ci eh, fa ñu nekk ñu ca jàppale soxna yi ñu def la la leen ca war waaye itam sax nag mën naa am du jariñ dara ndax li ma waxan fee rek noonu naa leen mag moo xam ne nii dara diine xamu ko ay biddaa dong ne ca bopp ba ñoom moom la ñuy gëm jox ko seen bopp mu di leen digal di leen tere yow boroom xam-xam yi boo ñëwee soo leen waxee duñ la diglu duñu def la ngay wax duñu bàyyi la ngay tere kon loolu moom eh, jafe-jafe bu rëy la boo xam ne bii wàll googu moom ñu ngi ko ciy dund bu baax a baax waaye daal ala kulli xaal <clears throat> am na yu bare bare yoo xam ne daal ñu ngi ko fay def yoo xam ne moom eh, du diine eh, diine santu leen ko su ko defee li lislaam di digal euh, ab jigéen daal boo xam ne bii day tënc mooy euh, wa yajibu alal mutad alal mutadati an taxidda fi hadihi alfatrati wafaan li zawji li ko lislaam digal la ca jëkk mooy soxna si bu nekkee ab sëriñam ba sëriñ ba jiitu ko àllaaxira maanaam lislaam da ko naan maanaam na ko tënc maanaam tënj gi maanaam da nga am fanweeri ay eh, da nga am ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne maanaam mën nañ ne maanaam da ngay ñaawlu daal maanaam da ngay wàññi say taar yooyu maanaam loolu nga def ko ngir kóllëre goo xam ne gii seq nga ko sa jëkkër jooju nga sàmmonteeg moom ba fan yooyu maanaam nga moytu ci yu baree bari yoo xam ne yi yaa ngi ko doon def bokk na ca la ko lislaam di digal itam tarku zinati mooy bàyyi ab taaru maanaam di di defaru di sol ay yére yu cher yoo xam ne yu ràññeeku la daal lislaam day bëgg nga wàññi col googu maanaam di ko def col gu yememaay wàcc naa bi kulli ma yadoo ila nikaahiha lislaam yi day digal jigéen gi buy tënj mu moytu lépp loo xam ne lii daal su ko defee maanaam mën na xëcc góor ci am xelam di nekk ci mu takk ko lépp loo xam ne lii su ko defee su ko góor gisee loolee mën naa xëcc xelam góor ga ngir mu am xelam nekk ci takk ko ci jamono yu ne ne islaam ne na ko moytu yooyu nag da cee bokk mina toy bi lu mel ni di xeeñ ay lat ko ñu ràññi ko yooyu wal kuxli ak di tusngalu maanaam di màkk yowu wal xidaab ak di fuddanu wa thiyaabi zinati ak di jël ay yére yu rafet yu yu ràññe yoo xam ni da koy sol wal xol yi ak ay takkaay yoo xam ne da koy takk yépp daal moom lislaam moom la muy digal jigéen nga ne na ko moytu jamono ji nga xam ne jii euh, mu ngi tënc kon soxna si nekk ci tënc maanaam na moytu lat ko lañ bu ràññeeku lool na moytu di tusngalu maanaam di defar kanamam ak yooyu waaye itam na moytu fuddan fuddan tànk ya wala loxo ya ak yooya waaye itam yére yu ràññeeku ya itam na koy moytu ak ay takkaay yoo xam ne da koy takk yooyu yëpp na ko denc wa yajibu alayha luzumu baytiha allazi kaanat tuqimu ma zawji léegi itam bu fekkee ni ca kër kër ak sëriñ ba ba sëriñam ba faatu ca kër ga ne na sax ca kër googee te bum di génn génn boo xam ne bii génn bu sori la te it nay góorgóorlu ba kër googu su amut aajo joo xam ne ji ju ko yittee la yittee la joo xam ne ju ñàkk ci moom la maanaam na ko génn mën na ko génn dem doxi ko te doxi ga bañ a yàgg te génn googu nay doon ak bëccëg waaye na góorgóorlu ba fu mu mën di nekk bu guddee daal bu mu génn di aw fen liñ ko may mu génn ko daal mooy euh, euh, ak bëccëg te lañ ko koy maye mooy mu am yitte yittewu joo xam ne jii da ca bëgg a doxi soxla loolu daal dinañ ko may mu génn ko te ñëwaat ci këram la ca desaan muy laaj hal du azawjatul kitaabiya ah, waaw ki nga xam ne kii ab julli la takkan ab nasaraan wala ab yahud ne bu faatoo ndax eh, jabar jooju dina ko tënj waaw waaw naam azawjatul kitaabiyatu taataddu min at-talaaq faat kal muslimati la wax ne ne eh, waa ji bu amee jabar joo xam ne jii alkitaabiyatu la mooy ñoo ñu am téere muy nasaraan ba wala yahud ba ne su jëkkëram faatoo da koy tënj waaye tamit su ko jëkkëram fasee day tënj euh, day dawu maanaam day dawu day euh, fase da koy def waaye tamit iddatul wafaan muy day tënj da koy def kon ñaar yépp euh, ni mu waree soxna yi nga xam ne ay julli lañu noonu la ko waree moom mi nga xam ne mii ab kitaabiyatu la ne nag wa haza ma waafaqa alayhi alxanafiyatu walmalikiyatu walshafiyatu walxanabilatu war gi nga xam ne gi da koy war muy alkitaabiyatu daa war a ténj bu jëkkëram faatoo daa war a iddaw itam buñ ko fasee boroom ñeenti ngir yépp d'accord nañ ci maanaam almashabul xanafi yu d'accord na ci moom la wax almashabul maliki yu moom la wax almashabu shafii moom la wax almashabul xanabili moom la wax kon lii lu wér la ne Euh, soxna si kon ñaari idda yëpp muy iddatul wafaat ak iddatul talaax yëpp da ko war a def kon defe naa looloo fi rotoon ci ay laaj ñuy jéggalu bu baax a baax nag xam na bu ñuy xool fii laaj yi moom benn bu ci nekk rek maanaam daanaka boo ko doon xool doon na doy sëkk maanaam ñu def ko ak émission moo tax euh, dañ ko tënk donte xaanaam yaatu na lool bari na lool waaye dañ koo tënk lool lool sax nag kon yal nañ yàlla defal dégg ak topp bi jëy si na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeelaat bu baax rek eh, Modou Ngom ñi nga ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii eh, sos na ko te di ko saytu ngën ji saytu wax dëgg yàlla noo ngi ci gën a am xel mu dal suba gun xëyee te di ñaan yàlla it maanaam yàlla bu ci seytaane amu yoon ndax seytaane moom lu baax rek moom la bëgg kon ñun ñëpp daal fu nu mënti toll nii liggéey bi doxe nanuy ñaan yàlla mu jàppale ñu ci gën ko jëmale kanam ñuy ziare ñëpp euh, góor yàlla yeeg borom xam-xam yeeg soxna yi ci biir ak ñëpp daal noonu leen di ziare di ñaan yàlla defal nu tawfiixaan wala yaa xam bi jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf